Djibril Gningue maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay euh, Ndeye nii ñu ngi laam-laamee tas gu ñu war a tas assemblée nationale bu Sénégal gis nga coow li si am lan nga naka nga ko gisee en tant que membre du RADDEC. bon euh, loolu warul bett kenn puisque d'abord constitution bi daf ko prévoir constitution bi. daf ci am loo xam ne ñi ngi ko jëlee ci régime parlementaire bi nga xam ne moom la Sénégal amoon en mille neuf cent soixante euh, soixante alors te euh, ñu koy tuddee moyen d'action réciproque maanaam président de la république bu euh, assemblée bi demee ba am ñaari at am na possibilité dissoudre assemblée bi nationale bi et opposition bi aussi am na ñu possibilité sanctionner gouvernement bi bu fekkee ni bi doxalinu gouvernement bi euh, dëppoowul ak seen gis-gis ak li ñu bëgg muy benn mm-hmm. euh, ñaareel bi mooy que ñëpp gis nañu ne euh, vote présidentielle bi passé alors Diomaye président coalition boobu ko à cinquante quatre pour cent n'est-ce pas ñoom amuñu majorité ci assemblée nationale te loolu jafe-jafe bu mag la pour que ñoom programme bi ñu leen bi tax ñu fal leen ñu mën ko jëmmal ñu mën ko doxal kon nag dafay jaadu ñoom au lieu ñuy xaar ñetti at pour mën a euh, demaat élection législative pour mën a am majorité ñoom ñu utiliser li leen constitution bi may dissoudre assemblée nationale bi comme euh, bu ak ñaar ci ñaari at yi dana mat ñu dissoudre euh, hmm. du am aussi ay conséquence yu yu yu yu négatif ci doxalinu réew mi ak wa wala sax jomaay ni mu war a tëralee euh, gouvernance bi comment ça va se passer. li ko loolu loolu yaakaaruma ne dina am. jafe-jafe ci état bi parce que loolu yëpp euh, constitution bi daf ko prévoir euh, non seulement constitution bi daf ko prévoir mais réew mi dafa am ay institution yoo xam ne ñoo ko ŋànk conseil constitutionnel dañ ko fi teg pour moom muy surveiller justement lépp loo xam ne dafa jëm ci constitution ak ci institution yi waaw président de la république assemblée nationale justice nan la ñuy doxee et cetera saa su lu ci jubul ñu jubbanti ko donc hmm. normalement du am benn jafe-jafe mais constitution bi dafa jàpp benn diir diiru euh, juróom-ñeent fukki fan ne président bu dissoudre assemblée nationale bi hmm. ci diir boobu la war a fixé datu élection yi kon nag mu nekk diiru ñetti weer boo xam ne diir bu gàtt la boo xam ne amaan na loolu dara du ci mën a xew leneen quoi loo xam ne lii hmm. ñaanuñu ko yàlla mu am situation Euh, di àddina bi <laughs> parce que assemblée nationale bi du mën a réunir ci période boobu. Mhm. alors loolu mais loolu bu admettons bu amoon le conseil constitutionnel est la pour répondre justement à cette situation là pour wax président nangam ma i nangam. bu ñu ko tasee Djibril Gningue organisation élection yi naka lay demee. waaw ouais, organisation élection yi nag euh, dafa am euh, ñaari mbir yu ci am. benn bi mooy que ci délai euh, ci diiru ñeent fukki fan euh, juróom ñeent fukki fan yooyu alors euh, war nañ ci amal parenage bi war nañ ci amal dépôt dossier candidature bi war nañ ci amal yeneen xeetu liggéey yoo xam ne mooy may élection yi am war nañu euh, defar li fii ministère de l' intérieur war na ko defar yóbbu ko ñu imprimer ko ah war nañu choisir euh, euh, nu mu tuddati lieu de vote yi ah yóbbu fa matériel bi war nañu former ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci bureau de vote yi et cetera et cetera alors liggéey boobu yëpp nag pour mu am ci diir boobu nga xam ne diir bu gàtt la juróom. Euh, juróom-ñeent fukki fan nest pas alors euh, te nu mu tuddati euh, code électoral bi prévoir ko loolu dafay laaj classe politique bi waxtaan ci seen biir pour déggoo ci lu nekk kañ lañ koy def ginnaaw bi nga xamee ne président jël na décret fixé datu élection waaw d'accord euh, ñu wax ci beneen ponk bu am solo Djibril Gningue di euh, mm-hmm. motion de censure bi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar déposé nañ ko ci assemblée nationale euh, noo ko gisee est-ce que mën na aboutissement ci sa xalaat waaw wala déet waaw motion de censure boobu waaw on verra li ci kanam rawu li gët mais ñoom constitution bi may na leen ñu mën ko ñu mën ko def Euh, waaye li ma ci gis mooy même bu aboutiré hmm. euh, président de la république bu ko neexee mu reconduire premier ministre hmm. premier ministre reconduiraat gouvernement même gouvernement bi euh, même ministre yi hmm. même gouvernement bi voilà donc donc amul benn problème voilà aussi ñu ngi wax ni bu fekkee daaneel nañ assemblée bi problème mu parrainage mën na am après ça veut dire ñu ci mën a dégg exactement waaw problème mu parrainage bi mooy que code électoral bi dafa jàpp ne parrainage bi mi ngi war a tàmbali bu élection yi desee téeméeri fan ak juróom fukk te gis nga li ma la wax ne la euh, constitution bi dafa wax digle ne président mi ngi war a jàpp datu élection yi ci diiru euh, juróom ñeent fukki fan nga loolu àggu ci téeméer ak juróom fukk <laughs> est-ce que tu donc loolu loolu mooy problème majeur bi beneen bi mooy que code électoral bi dafa wax ne dossier liste yi nga xam ne ñoo nar a dem ci élection yi ñu ngi leen di déposé ci diiru euh, quatre-vingt-cinq jours juróom-ñetti fukki fan ak juróom loolu aussi mënul xaj bu baax bu xajee tamit mënul xaj ci biir euh, ci biir euh, diir boobu parce que buñ ko bu ci buñ ko jëlee jëlee loolu pour def ci dossier yi dootul def dara pour parrainage donc il faut que ñu jàpp classe politique bi discuter ba déggoo ci euh, diir boobu lan lañ ci jël féetale ko ci parrainage bi ak lan la ñuy féetale ci dépôt dossier yi te buñ ci bëggee ay conseil administration bi nga xam ne moom mooy liggéey loolu mën na leen conseiller loo xam ne bu ñu ko defee affaire bi dana baax muy benn ñaareel bi mooy que parrainage bi ci boppam ñëpp gis nañ coow li nga xam ne malgré euh, dispositif bi nga xam ne conseil constitutionnel mettroon na ko en place la dernière fois. Mm-hmm. coow li ci kii yëpp. donc à défaut ñu supprimer ko cette législative bi avec le risque de se retrouver avec une inflation de liste parce que loolu tam beneen problème la il faudrait que classe politique bi bu ñuy discuter pour. Euh, diir yooyu euh, délai yi ma la waxoon pour ñu jàpp ko pour parrainage bi ak dépôt dossier yi ñu xoolaale nu ñuy woyofalee parrainage bi waaw lim bi nga xam ne par exemple nit ñi war nañ ko ut candidat yi euh, ci jëm ci parrainage citoyen ak parrainage des élus alors pour que loolu yëpp ci biir boobu ma la wax ñu mën ko def ci mu mën a am élection yu mucc ayib en attendant maintenant Euh, le, le dispositif lourd lourd euh, ci euh, parrainage yi maanaam le mode de contrôle ah en attendant que ñu koy réformer parce que yaakaaruma ne ci diir bi loolu dinañ ko ci mën a réformer dinañ nit ñi mën a discuter ba d'accord am accord ci loolu Mhm. dernière question euh, Djibril Gningue moom mooy am na ñuy suggérer euh, njiitu réew mi organiser référendum pour euh, supprimer au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique sociale et environnemental gannaaw ba mu dugalee projet de loi bi assemblée bi daal di koy rejeter. waaw waaw waaw man loolu ànd naa ci bu baax a waaw bon en attendant à la limite peut-être le président pourrait euh, changer les euh, présidents qui se trouvent à la tête ñi nga xam ne ñooy jiite euh, kuréel yooyu muy HCCT ak euh, conseil économique mais li nga xam ne ñoom war loolu la ñu war a def autorités yu bees yi mooy ñu def refonte des institutions et des lois waaw pour une nouvelle gouvernance pour mu mën a am rupture bi nga xam ne moom la ñuy woote ah, ñu ñu mën ko am waaw ah, loolu nag euh, il faut que ñu mën a ñu ñu dem euh, bu amee ñu dem ci référendum waaw pour am beneen constitution voilà. Mm. merci beaucoup Djibril Gningue ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité. voilà merci bien Ndeye Comba Moreau may fàttali ni Djibril Gningue membre nga ci groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance ñu gën ko xam ci GRADEC merci jërëjëf.